moment bi nga xam ne ñi ngi euh, def euh, point de presse bi mën nañu wax au niveau national 14 euh, régions du Sénégal yi la majeure partie ñi ngi defandoo point de presse à même heure liko waral nak mom moy jafé jafé bi nga xam mom lañuy jankontel depuis que ñuy réclamer li nga xam moy copie privée copie privée bobu nak dañu defoon benn commission nationale bo xam dafa jëm ci li nga xam moy rémunération copie privée commission bobu nonu artistes yi amon nañ fa représentant commission bobu nonu producteurs yi amon nañ fa représentant SODAV amon na fa représentant ñu waxtanon ñoom aussi impliqué ci ñi nga xamné moy consommateurs yi ak commerçant yi bi nga xamé ne def nañu lolu ñamit ñu waxtan ci seen biir ba tënk waxtan ci ak ministère de la culture légui nak li ci déssone moy ministère de la culture ak ministère des finances ñoom ñu trouver consensus pour que ñu mën ko nek euh, lolu noonu mëna nek euh, lo xamné ne dafay nekk en rigueur parce que dañu gis né la loi 09 2008 bi mon moi droit d'auteur droit voisin droit d'auteur nak bon fait mi ngi nek en cours parce que vraiment euh, en rigueur mais droit voisin bi nga xamné nak mom moy ñi nga xamné moy mooy yi ñi nga xamné dañuy interpréter musicien bi bu nekké ci kanam ñi nga euh, kat bi bu nekké ci kanam ñi nga xamné ño nekk ci ginnaaw ñooñu daanuñu leen prendre en compte te ñoñu dañu dugg ci biir li nga xamné mom lañuy wax droit voisin bu fekkee né tamit aussi chorégrapheur la comme béy di mi nga xamné ne euh, dafa yoro compagnie compagnie bi danseur yi aussi daanuñu leen prendre en compte ñu bokk ci li nga xamné mom moy droit voisin yoyu bu fekkee fekkee ne théâtre kat la ñi nga xam ne ñooy jëmmal li nga xam ne waa ji fent na ko ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu tamit aussi ay voisin la ñu moom la ñu naan droit voisin dugg dañuy dugg ci li nga xam ne mooy voie euh, droit voisin ñooñu ñëpp nag boo gisee droit voisin boobu depuis 2008 ba léegi nii euh, président mettroon na ko en en rigueur bindoon na ko euh, ñu signé ko mais gis nañ ne boobu ba léegi doxaluñ ko loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne tey moo gën a lor artistes yi bu ñu feebaree ñu leen di ketal léegi nag loolu nag bu fekkee ne droit voisin boobu noonu yàlla def na mettre nañ ko en rigueur ba mu commencé dox te xamuñ lan moo tax doxul loolu bu commencé rek jafe-jafe yi amoon ci artistes yi dootul am parce que képp koo xam ne interpréteur nga woon yaa ngi doon interprété di nga di mën a jot say yelleef ak say àq lolu nak mo la loi 09 bi nga xamné en 2008 la woon boobaak léegi 15 ans la chaque année rek bo xolé ci li nga xamné moy téléphone yi accessoires yi ñom seen yoyu dañ ci perte 2 milliards boko globaliser ci 15 ans yi mu nekk 30 milliards yo xamné ne perte nañ ko te 30 milliards yoyu amon nañ jëriñ ci artistes yi surtout ñi nga xamné ñoy festival yi ñi organiser ay festival ñi def ay formation ñom seen yépp tay ci lolu nonu tay bu fekkoon ne mi ngi dox ñom ñëpp duñu am jafé jafé yi dinañ ko mëna a def tranquille Lolo, waral tay sunu woote bi ñu woote di wax na rek copie privée bi ñu ngi koy réclamer ni koy ñëpp waxee ñu nit Kaolack ñu ngi euh, vraiment euh, ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi au niveau national ak artistes Sénégal yëpp pour ñu xeex li nga xam ne moom mooy euh, yelleefu ak ak doomu adama yi nga xam ne jëm nañ ci wàllu artiste surtout ñi nga xam ne ay artistes yoo xam ne la ñu ñoo jëm ci droit voisin